yëpp maa ngi lay ziare bu baax di la wax félicitation. merci beaucoup Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sa caméraman bi. di santaat yàlla bu baax a baax. di santaat yàlla bu baax a baax di santaat yàlla bu baax a baax. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lool te wér. di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam. di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaaree àjjana firdawsi ak mboolem jullit ñu leen fa fekk ak ñi fa fekk. di nuyu waa Caaray Géej aw ma seen fay jàpp nañ si combat bu baax a baax a baax. ak fukki penc ñaar yëpp maa ngi leen di nuyu. mais rëg-rëg li ma lay njëkk a laaj ginnaaw bi nga daanee Bombardier euh, dama gis mbër yi des fois bu ñu daanee toog dal lu nopp lu mais yow dafa mel ni da nga ko cee tegaat quoi kan nga kañ nga commencé entraîner wala tey nga commencé waat. waa tey laa commencé waat waaw tey laa commencé waat ndax ñu ay xale nañ dañuy liggéey rek waaw ndax am na lu may xaar lu bëree bëree bari waaw am na lu may xaar lu bëree bëri moo tax ma nekkaat si waaw. moo tax nga nekkaat ci mais su ma diggaate sa combat ak Bombardier kere bi ma waxee ak yow ci ëpp ci point de presse open presse à tout moment bu ñu waxee rëg-rëg fi mu doon waxee mooy man ak ñi Bombardier bëreel du ñu benn wax nga ne du maag yi maag Modou loo du ñu benn maag Balla Gaye duñ benn bi nga koy wax danga nga ko tegoon ci da nga ëpp ñooñu technicité bëre wala da nga gën a xam ñooñu yoon wi daan Bombardier bi ngay wax loolu. non dama leen ëpp bëre. waaw dama Balla Gaye ak Lo yàlla na ëpp bëri. fuuf bokkuñu sax nu ñuy bëree man du ma dara si bëre kooku assuré bëre ba pare xam lu muy bëre waaw maa ngi koy wax si benn interview nee na poids lourd gan bi am mooy maanaam xaw ma nu ñu koy waxee invisible doo ko gis gan boobu gan boobu nañu am si si si euh, VIP. si VIP gan boobu nañu am. maanaam VIP ñoo am gan goo xam ne duñ ko gisuñu ko quoi. voilà gisuñu ko invisible la. incha allah dinañ si xam dara doon naa xale nu ma bëgg a mel laay mel kenn ëpp mu si doole bëre moom waxaale wu ma ko waaw mais yàlla baax na daal ñun ñu ngi ànd ak yàlla suñu borom lu ñu yàlla may rek ñu jël. nga def ko nu ko kenn mës ta def Bombardier c'est la première fois loolu ñu gis ko ci carrière am. waaw avant tout sax dañ koy sant di ko gërëm. ndax suñu grand la sunu doyen la sunu tonsa ndax tey jii moo fi def lu kenn deful doon roi des arènes deux fois kon moom desalul làmb dara làmb moo ko war a delloo njukkal. ndax tey jii boo xoolee tey bu ko neexoon ne du moom may sens waaw waaw xoolul loolu yëpp bëgg a xale boo xam ne maanaam dañ naan kii moo fi man waaw kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ñu ngi koy ñaanal lu mu bëgg ñaanal ko suñu borom defal si barke Seydina duñ ko mës a wax lu ñaaw bu combat bi taxee ba léegi suñu doyen la suñu torche la waaw ñu koy ñaanal yàlla suñu borom jàmm daal waaw si barke Seydina moom. su moo xam ne bu arbitre soufflé waan dana xeex. dana jël si dana dóor bi yoon gisuñu ko loo ko tegal pied droit bi la parce que dafa mel da nga sens say tànk bi yoon indi pied droit li nga ko tegal la ba tax mënta déclencher xeexam wala lu xew. boo xoolee at bi dafa ciblé ma teg gauche di ma tegee gauche dox ñaari pas changé waat gauche ndax indi droite ndax ndax droite bi mu waxee indee moom droite am laaw rek la si man léegi damay rey loxo gauche bi. ma ne sësoog moom bu loxo mu jigéen ma jàpp ko waaw ma def ma mépp ñaari yoon loxo droite bi ñëwul ma mébaat loxo droite bi ñëwul mais sax bu may méb damay téye loxo gauche bi waaw bu ma wàccee damay gis boobu mbëri mbëral yëpp ñooñu bu ñu wàccee da leen fay fekk ak droite mais man ma def ñaari yoon fekkuma fa ak droite man a xaar ma jël sama sama décision nag. loo tax loo loo yaakaar ne moo tax fekku la fa ak droite. waaw mais. c'est que mu ngi xalaat tey jii loo xam bu jigéen ama koy jàpp you know ba pare moom dafa wóolu woon bërëm de trop waaw pour moom bu jàppee sama ngemb man na maa daan te champion bu ne la maanaam bu xamee loolu day li mu bëgg day lay téye waaw loolu la foogoon quoi foogoon ne maanaam mënu ma kaa daan ci bëre waaw moo tax xam ne xëj na droitam dugul wala xëj na bu xa droitam jugee damay ñëw songo I don't know kenn xamul daal waaw moom moom kenn xamul lu mu jël décision mais ñu bëri wax nañ ne bu jàppay ngemb dootoo am sens avant combat bi am nañu ko doon wax mais gis nañ ne bi mu jàppee sa ngemb yow dafa mel ni da nga ci force bëri ak moom foofu doole fa feeñ wala la wala xam-xamu bëri maanaam ñoo ñuy wax loolu dañoo xamul rëg-rëg man I don't jàpp amul problème du ma teree bëgg lu ma def lu may bëgg ndax mën naa bëre macha allah am naa doole macha allah waaw te yàlla suñu borom bàyyiwuñu waaw te ma mën a bëre poids lourd kon man boo jàppee sama ngem anyway aw ma si problème waaw du ma teree def li ma bëgg daal waaw noonu la demee. mais ci biir jàpp bi bi loolu amee bi nga koy yóbbu bi sa bopp di génn nga koy nga koy yóbbu dama gis nga def bëri bu saw ca suuf sa tànk nga dóor ci tànkam. waaw ah, moom laa lay expliqué ñun dañoo mën a bëre ñun si keppaaru làmb nañ juddoo ëttu làmb nañ juddoo kon ñun bëre jaaxaluñu. yow li loolu ma defaru laa jaaxal ndax topp nga ma fu ne daan naa nit nu ne waaw kon loolu lu ndaw la rek ma dara lu loo xam ne spectacle na noo lu ndaw la. li nga def non du risque. lu risque la lu risque. waa dafa risque waaw dafa daan bi nag dafa dafa dafa. daan bi moom macha allah waaw c'est que ki moo toll noonu kenn musu kaa def li ma def waaw c'est la première fois daan bi daan bi ma ko daan nit musu ko kaa daan bi mu takkee talee takk ngemb ba léegi waaw kon loolu sant yàlla la te tey jii. boo Bombardier bokk sa euh, sa palmarès rek loolu beneen affaire la ba pare nga ñëw daan ko avec la manière waaw lu kenn foogeelu woon waaw moom laa ko ñëw def kon dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne du si ñu lépp yàlla suñu borom la. bi ñuy wax na xeex bi du sa avantage ci xeex bi du avantage su Reug Reug euh, bu ngeen demoon ci xeex bi nag ba tey. waaw mais bu demoon si xeex bi tam nañu wuure rek. anyway man awma si problème ndax mim naa ñaari yoon pour mu jóg pour ma bëgg li ma def ma naa mibaat mimaat ñëwul ma def li ma bëgg waaw loolu la quoi. yow bi ngay dem di jëli ji ngembe ak sa ak sa loxo góos defe naa nga ko jëlee yow boobu seen nga ba mu leer na boo jógee di nga ci jàpp ca ginnaaw. waa boo xoolee avant may dem damaa mën ku pëli loxo bi téye loxo bi ma téye damaa mën dama ko xëccaale mu ñëw waaw pour mu jégg pour pour maanaam noonu kaw gi mën a yëngu tuuti rek xam ne du mën a dóor waaw noonu laa def après si laa dugg léegi nag bu may dugg moom du am di du ma dóor ndax sama loxo bi àgg na àgg na sori si moom. léegi foofu lan lay bëgg a def damay bëgg moom mu dugal loxaam bëgg maa dóor naax te loolu duma ko may mu gis loxo bi libre foofu maa bëggoon mu dóor ma naax pour loxo bi mën libre ma mën a képp loxo bi tey ngembali léegi nag boo xoolee bi ma forcé de lii moom mu ngi xool mu ngi xool samay tànk léegi xool samay tànk est-ce que dañoo tolloo waaw bëre bi dafa maanaam maa ngi moom dañoo wure si bëre waaw moom mu ngi may xool li may def waaw moom man tamit maa ngi koy xool li muy def tànk yi loolu dama ko xëcc léegi loxo bii mu ngi si biir loxo bi xam naa ne bu génnee rek damay bëgg a pëtaxal mais daa génne rek ma sama boo xoolee sama gauche bi sama tànk nii la def deful nii waaw bu tollowoon man na maa fa bu ma lii rek ma ñëw damay mbaar mais bu defee nii mënumaa mbaar na bu saabu defee nii appui bi dama koy am waaw ndax liggéey naa loolu sama sulu noonu la demee léegi nag si la ma si la ma yokk mu teg sama tànk loxo bi génn loxo bi rek bu génnee rek jéena léegi mu génn ma ma bëtta ko wandaal ak moom mu yaakaar dama fay yàgg ma laal ko tànk ba pour équilibre bi mën mën a yëngu tuuti bouger ma laal ko tuuti dóor tànk bu ndaw wandaal ak moom waaw riñaan ko woon daal ak <laughs> am na solo euh, kon yaakaar naa ne daal euh, ñu ngi koy euh, félicité moom Bombardier parce que tamit mbër la bi nga xam ne macha allah carrière am na lool tey ku mel noonu yow nga bëre nga nga amoon nga daan ko gis nekk xale di ko seetaan muy toj làmb dégg na deux deux fois roi des nga lekk avance am bëre ak moom daan ko tey lu mu la def yow en tant que mbër yow mi ko daan. sant yàlla rek. te ñu bëri jaar fa échec. ah oui sant yàlla. na tey ji mooy ni nga rek palmarès nag palmarès bi riis na kon loolu dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax du su ñun nag yàlla suñu borom moom moo ñu kattanal mooy ñu doole ba ndànk waaw duñ ko mës a ndamoo nag waaw ndax lépp yàlla suñu borom la. dañ koy delloo ak borom waaw ndax li yaa wax def na fa lu ne yóbbul na mbuur torofa bu ne doon na fi maire riteur lu ne def na ay yoon waaw wooy yaa kon nag. dañ koy ñaanal yaa suñu defal ko jàmm waaw di ko félicité waaw euh, par rapport ak combat bi après bi combat bi jàll xam nga Sénégal dañu polémique bi daa bëri gars yi naan rëg-rëg ak Bombardier est-ce que waxtaanuñu est-ce que nangam ak wax jooju yëpp yaa ngi koy dégg ah ngi wax loolu wax jooju bi nga ko déggee yow nu mu la def. non defuma dara ndax ñi euh, wax loolu dañoo xamul rek waaw man si mbapat fekk nga ma fa du ma maye musuma combine du ma mës a maye loolu doonul sama habitude yaa may dégg Bombardier dafa bëggoon a génn ak grand porte nañ waxante dëgg kon gars yi di wax noonu bàyyi nañ bàyyi saboté bi waaw bu ñu tilimal sama victoire ndax dama liggéey taj ay coono yaa may dégg kon ñooñu di wax noonu amul lenn lu ma leen wax waaw damay bàyyi ak yàlla suñu borom yàlla suñu borom borom bët bu rëy bi xam na lépp parce que man bomb laaj naa ko avant combat bi mu ne ma man mayewuma sens joxewuma lenn man damay bëre doole laa yor comme ñoom yaa ngi dégg fi mu nekk nii moom amul lu may maye kon yaakaar naa li nga wax ni te man tamit li ngay wax dama koy dëggal par rapport ak yow ci mbapat topp naa la ci masuma mosumaa gis mbapat sax nga maye ci ndax xam naa ay mbër yuy maye ci mbapat man Babacar mais masuma laa gis nga maye ah ci loolu. waaw ñooñ di wax mooy li may wax rek xëy na dañoo suba tawul rek rek wala instant bi rëra mu ngi leen di déranger si poids lourd yi xëy na ñuy wax loolu. mais man sama der kenn mënu kaa tilimal man kenn mën ta yàq sama victoire victoire bu rëy laa am bu rëy xeebu ma ko victoire la waaw. kon da ngaa jàpp ne sa. daan boo xam ne kenn mësu ko kaa daan kon ñooñu di wax loolu man yàlla laa leen di bàyyil man moom duma ma tricher mësuma tricher sama supporter yëbu ma leen sax yaa may dégg bu ma bay defak moom loolu. combine loolu ba laay laajum biteel du ñëw si esat samay supporter kon kenn du ñëw waaw laay laajum te loolu du ma def du ma ko def adduna jaralu loolu ma yor sama doole man ka jaay doole daan ko dem sama yoon dégg commune moom ban njëriñ la am waaw yow gars eh, eh, eh, nga ne dafa am ñooy déranger ñan ngay déranger ci poids lourd yi maanaam ci VIP yi. ñëpp wax naa la nee naa man invisible la kenn du ma gis man waaw. ñoom ñoom fi ne ñoom gars yi. chaque jour doon naa la ko ay temps nee naa la chaque trois ans da am benn buy buy génn mais chaque trois ans tamit daam ko war a dugg VIP boo ñaar bu mu duggee yëngal na ama bu mu duggee yëngal na ku des man dugg naa yëngal te desaat na. saa des moo war a bëri ak Eumeu kon nag des man maa ngi maa ngi seen biir xam nga dugg na. léegi nag ñoom invisible laa invisible moom laa. maanaam yow dañ laa sóorul maanaam dañ laa sóorul moo tax mënuñu laa gis wala. mu ngi non non comme dañ ma sorul sax maanaam man kenn mënu ma gis. kenn laa gis. waaw ndax dama nekk seen biir fooguñu woon man dinaa egg si foofu. da nga leen a bet voilà noonu la demee ak ñu bëri ah. jàppoon nañ jàppoon nañ euh, Bombardier damay ñëw duma daan ma dem yoonam ñu bëri ah mais lépp sant yàlla ñun ay xale nañ dañuy liggéey. poids lourd yi am nañ problème wallaay lancim di caaxaan waxantuuma ko ma ëpp ñu ma doole dàq ñu maa bëre. ñoom les VIP. wallaay lancim. ca roi des arènes. te ku ma si am dina xam ne am na bis. ñoom ñëpp pare naa surtout pare naa si lépp wallaay lancim pare naa. ku mel ne dama ko nekk bërki démb sa combat ak Reug Reug nit ñaa ngi koy wax parce que Lac de Guiers mosuma gis mbër bu ko daan ba mu jaaxaan. Bombardier mësuma gis mbër jàpp ko daan ko ni mu ko daan rëg-rëg moo ko def sa combat ak rëg-rëg ñu ngi koy wax mu ne moom le premier lay xaar waaw man nag le premier laay xaar waaw <laughs> ah laay xaar carte gi ma la leer Modou Lo ak booy Niang da nga fay sampin ah mais bien sûr Lac de Guiers de noo koy def non man instant yi moom boo dëgg yàlla ñee laay xaar euh, le premier laay xaar ah, waaw waa waaw waa dañ ma sas Roanne dañ ma sas le premier laay xaar waroon laa la xaar beneen combat balaa nga dem ci roo amoon ma la ma jox la benn affaire quoi Modou Lo bu fekkee moo daan Boy Niang kan lay bëreel waaw <laughs> nee na du bëriwaat ku mu bëriloon waaw moom lay bëri waaw léegi kan man maa fi sës bu daanee Boy Niang yow yaa fi man maa fi sës kan di kan lay bëreel bëriwul ak kenn de un ngoog ma ñëw Boy Niang bu fekkee moom moo daan Modou bu fekkee moom moo daan Modou kan lay bëreel <laughs> du ko may revanche. du may Tapha Tine revanche ko may revanche. Tapha Tine du moom du jël revanche am. Boy Niang du waaw du demaat si la dëgg di jëliwaat revanche. Hmm. kon kan lay bëreel. kon Boy Niang kan lay bëreel. kan lay bëreel. du mayaat Balla revanche kan lay bëreel. tax Sénégalais dañoo soxla combat jànq. yu bi cinquante cinquante la isam la expliqué cinquante cinquante la dañuy daj ay coono sénégale loolu lañ bëgg mais bëgguñu ay tàng mayonnaise sa tàngal ceeb ak yooyu bëgguñu loolu. kon yow xooloo Lac de Guiers. non man xanaa déggoo ma man maa ngi fi pour lam dama na la le premier incha allah moom nañuy xaar bu soobee yàlla. seen combat dañ ko fi doon wax ay jamono. yow sax laajoon nga ko. jamono nga wax. mais du léegi. mais daa jóge ndam nga jóge ci ndam. mais sa doomu nday Siteu. du léegi ay xam nga tey jii ay jamono nga waxoon. boobu ba ma bëree guy gi la woon. waaw mais tey en tout cas daal maa ngi xaar le premier le premier laay xaar allah. mais nag lu tax nangu woo koo tudd. ma ko tudd. jamais de la vie. loo koy maanaam gis nga doomu aadama gis nga làmb. waaw kat làmb dafa day waar. wallaay lazim billaay wallaay non lamb dafa doy waar maa ngi lay wax lu garaaw. non lamb moom day soppeeku ma. wallaay lazim billahi wallahi taalaay ndax lamb. non lamb lamb lamb da ngay ree billahi lamb ku ne man maîtriser naa naka rek. ma lamb laa ku ne la maîtriser naa ko rek boo ko ñemee wax ne nga ngay waxoo dëgg wallaay lazim lamb. lamb dafa doy waar da ngay gis benn booy léegi nii ñu leen di utal combat nga ne ah booy bi duma ma moromam booy yàq nañ xooli leneen booy boobu trois ans deux ans nga bëgg a bëre moom mu bañ parce que lamb dafa doy waar lamb dafa doy waar wallaay laa si mais man du ma mës a wax ni maanaam duma ma bëre ak jamais de la vie mukk <laughs> ndax kenn xamul lamb ëllëg lan la wallaay laa si moo tax man le premier laay xaar incha allah rab. waaw incha allah. mais dina xat de. non dina xat. yow nga koy xaar ñëpp fay wàcc nag ñëpp fay wàcc nag. lamb jooju ku ko tar fa la mbir may neex. <laughs> lamb jooju ku ko tar tar nga lu rëy. billaahi. Reug Reug bu jëmbeelu. Oh. Tapha Tine jëmbeelu oh. neex nga ko mais daal man moom le premier laay xaar waaw mais ñoom VIP yi moom gëm nga ne ñoom kuñ ci suuf la ak yow da koy tëral. non man moom wax dëgg yàlla boo bëggee dëgg-dëgg man samay combat yëpp boo ko seetloo dama lay daan ba toog sa kaw n'est-ce man poids lourd ma si am yow ma nga dem uti doole ak bëre ndax damay bëre ak yow ba nga doy te man du ma nekk ak yow ay point wala ay quatre appuis non non dama lay daan ba nga toog ba toog sa kaw naa leen foto leen ndax ëllëg samay sët fekk ko karaj ma téye sama téléphone loolu de atta photo dégg naa photo du subaa ko daan wax. voilà mu ngi noonu nag. waaw photo ñu xaar fa. te internet bi instant bi yàlla suñu borom lépp lu rek mu ngi noonu walaay lange waaw. macha allah am na solo mais euh, rek mu mel ni euh, kon rek fi mu nekk nii mu ngi ci confiance ci wóolu boppam ci pare goo xam ne moom wóolu na boppam ci côté yëpp ci bëree ak ci entraînement ak ci encadrement. Babacar maa ngi faral di wax wax bi rek man maay làmb. maay làmb xam nga lu tax man man man ay làmb. tax nga wax loolu. de un bu ma ñëwee si géew bi day neex bu ma ñëwee tous ambiance ku jël sa ticket wallaay laa mu doo ko rëccu ndax xam nañ ne li ñuy xaar si Reug Reug te loolu dama leen koy jox ban doyal ma ñëw bëre bëre bi dem sama yoon waaw kon nag man maay làmb te lu ma dugg day neex voilà non man. <laughs> maay làmb walaay laajum di caaxaan maay làmb. mais nag am na loo xam ne wax nga ko avant combat bi nit ñu bëri dañ cee àndul ak yow ku mel ni sax liiru jaan li nga wax ne que man daanoo ci làmb Sa Thiès daanu ma ñu bari jàpp ne foofu rëg-rëg doxewul sastu fair play non gars yi dañuy wax rek ndax tey jii ñoom nañ déglu wax bi bi ma wax dama ne man man man sama jëm bopp góob ma ba léegi damaa daanu man sama bopp laa. nag làmb ji nag daa ami rek. waxuma waxuma ay comme maanaam. palmarès beeg yooyu wala ila Sakess la wala lool non. salbetu sal sa maanaam salbetu mu vital Sakess ndax xam nga kam ma ko waa seen njëkk ko jox loolu dama ko nangul mais gars yi nañuy seetlu li may wax dama ne man sama jëm bopp gaw ma ni am naa defet ba léegi. tamit nangu nga li may wax dégg naa la mais. voilà mais xam nga gars yi mooy li may wax rek bu ñu yaakaar maanaam dama dama ñangin wala nangam damay saltal victoire jàmbur ne never man sportif la wallahi laa jëm sportif dëgg la man lu ñëw sama life dama naan yàlla suñu borom la ak lu mu mën doon maa ngi si gis na ay polémique lu ne ñu ngi koy wax mais ñoom nañ déglu wax bu ma wax. man wax bi ma wax sam boppu laa ko wax waxuma ko keneen. voilà man sama bopp man sama bopp te kenn ku ne am na si droit n'est-ce pas. d'accord nangu naa ni maanaam CNG jox na ko victoire loolu anyway aw ma si problème amul leen lu ma siy wax. moom mu ngi si combat man yàlla suñu borom may na ma ndam maa ngi si leneen is ma yàlla suñu borom baax na. mais gëm nga ne def nga carte foofa man aw ma problème boobu aw ma problème boobu. et never know parce yéen ñaar moom yéen ñooñu foofu ngeen bëriwaat. waat xam nga tey ji mooy xam nga tey ji kaay mooy expliqué la nag di nga gis lamb yu meti ndax xam nga lu tax fekk deux ans fekk deux la ku téye roi man na ma wat si yàlla ah, man na la ah, boo ko boo si amee ñaari <laughs> victoire dina ma yéem trop dina dina ma yéem ndax xamul boo xoolee Sa Thiès Boy Niang Ama Baldé euh, Tapha Tine Modou Lô euh, booy yi ñëw nii euh, Franc Serigne doomu dàngu waaw Zambala ah na de. Gris 2 sax ci yoon. Gris 2 yaa may dégg ak ñeneen des na. des na ñëpp a ngi bëgg a ñëw. des na des na de lamb ji des na de non dafa saturé xam nga dafa saturé ndax boo xoolee lamb ji. gis nga euh, Jackson bërki dem. voilà Jackson moom tamit naka gaay bàyyi xel. champion la waa di ñaanal Zambala tamit you know di ko ñaanal yaa suñu borom defal ko jàmm di wax waa CNG waaw dañuy ñaan rek dañuy ñaan. baal nañ ko kon alhamdulilah di ko wax nag na gën a góorgóorlu xam ne dëkk mooy moo nekk ci ginnaaw muy mbaaw waaw dama koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ndax li kat dal nii mu bañ ko dalti waaw ndax dëkk a nekk ci ginnaawam waaw jàmbaar ji yow nekk si rek. mais xale bu mel ni Jackson yaa ko tudd démb yaa ko tudd léegi barki démb mu bëreeg soq ba ba site ba amee ñu yuuxu yi bëri na ku ne ne maa daan mais yow bi nga xoolaatee affaire bi ñëpp ñu da ñu dem vaar gis ne Jackson daan na ko saaru bëri boobu lu koy may ah en tout cas daal làmb ji tax na suuf la tax na suuf trop waaw waaw tax na suuf moom. yow daa leerul say bët wala. Euh, maanaam leerul samay bët mais maanaam tey jii bu ma boo xoolee affaire bi Jackson soo wax na ko si euh, lii bi nee na borom moo si jàpp. ah loolu la moo am na jël yoo xam ne nit dina la mën fuuf nga daan ko genre jël yooyu ndax làmb mooy li ma la wax sànq làmb làmb dafa doy waar. wallaay lancé làmb. ku ne ne mën naa maîtriser lamb rek waxul ne am. billaahi wallaahi laa jum xoolal sox lim ko def. dóor tànk la def. waaw mais sox li ko xaw a man bu ma si ma li ma gis quoi loxo ba. loxo ba moo mbas. sangoor bi sangoor bi. sangoor bu mu teewoon moo mbas man loolu laa gis waaw mais loolu bu mbasul woon oh, top 5 lay jëm. dina fa yàgg. barki alxuraan dina fa yàgg trop trop trop. wallaay laa mais xam nga làmb mooy la ma rek dafa doy war waaw mais soxu ba léegi nangul moom daanu na waaw mais nañ nañ xool CNG li ñu koy wax waaw ñu xool waaw. am na solo eh, eh, Reug lu ko lu ko MMA servir ci sa maanaam ci ci carrière làmbam. oh bëri na oh ay MMA ay MMA neex na. wallaahi laaj doon na loo xam ne tey jii. sport bu ma sport noble mooy MMA ndax tey ji boo xoolee ibil na ma porte yépp maa ngi sant yàlla bu baax a baax waaw boo xoolee si làmb gën naa defar sama xeex gën na ma may vigilant gën na maa yokk loo xam ne tey ji aw ma kon damay sant yàlla bu baax a baax di wàcc nag sama benn combat boo xam ne belt laa war a xeex di si au Sénégal yëpp belt bu mag laa war a xeex maa ngi ko war a xeex euh, mois de mars waaw maa ngi si oo ñëpp ñu jàpp si combat bi xam ne doomu Sénégal mooy dem uti waaw incha allah. Modou ah Modou Boy loo ma ciy jàngatal. lamb ju lamb ju doy waar a ngoogu. lu tax nga ne daa doy ku nekk moo faral rek ku nekk kii moo faral rek kon ku ne ku nekk kii moo man rek jàppal na kooku supporteelu kenn la wala nangam la mais lamb jooju cinquante cinquante la. ndax tey jii euh, maanaam. Hmm, Modou dafa doon koo xam ne mënoo kaa contrôler est-ce que mënoo contrôler Modou Lo suba day indi li ginnaaw suba mu indi li waaw Boy Niang doon na koo xam ne day calculer lu muy def day leer nañ moo tax mooy la combat boobu combat bu doy waar la combat bu neex lay doon. Hmm. mais gëm nga ne man man ta match ni non gaw ma ko wax dëgg yàlla. match ni mënu fa am de. du fa am match nul da ngaa mës a gis match nul roi. ah mais monsieur Roi kay kenn du marché nii. maanaam dañ koo ñeme ñu doon def ñoom ñaar ba. Euh, ñoom ñu lool non non non non. bu ñu ko defee nga fekk leen. ñoom boo xoolee ñoom ñaar ay morom nañ. ma nga teew ñu lu bëri bu mag di am ay un an wala deux ans lay am ak kon ay morom nañ mais loolu du ci am. taxawaayu Modou Lo ci làmb léegi ak ni mu mujj ñëwee ci làmb keroog. waaw mais xam nga tey ji kenn ku ne <laughs> kenn ku ne sa staff lu la wax nga def ko wala kenn ku ne yaay xool li la neex nga def ko n'est-ce pas waaw Modou Lo looloo ko day moo tax mu def loolu. nit ku ne loolu la doy rek. moo xam rek Modou am na ndam moo xam ñàkk na ndam tey Reug Reug ak Modou exemple bu ñu doon bëree Modou ak na mu na mu na mu na muy entraîné ak na mu wexe ak na muy xeexe. yow boo xoolee Modou Lo sas entraînement am da kaa changé waat non dafa sopp am entraînement boo xoolee moo tax assurance ah, endurance rek lay lay lay lay lay entraîné nekkatul di yëkkati ay poids nekkatul du li muy def yëpp day day booleeg move day booleeg move. yaa may dégg athlète la bëgg a def boppam waaw boo xoolee Modou Lo man li ma gis jëlatul protéine man li ma gis quoi non jëlatul protéine ndax boo xoolee mu ngi xool tey jii maanaam mu gaaw waaw xoolal entraînement bi yëpp xoolal entraînement maam yëpp entraînement bi yëpp boo ko xoolee xam nga ñun yàlla suñu borom am na lu ñu may gaa nag yàgguñu si ànd nañ nekk nañ ak suñuy coach yoo xam ne lu ñu bëgg maanaam xam nañ façon entraînement bépp waaw kon Modou li muy entraîné yëpp day entraîné pour maanaam gaaw waaw entraîné tuuti comme maanaam yëkki poids ba ngand tol nu ko neex non non lu Lô bàyyi na loolu mu ngi si leneen waaw ak yéeg diin ak yooyu yooyu lay def. Boy Niang moom noo gisee entraînement. non booy Niang moom mooy li ma la wax rek gis naa ko entraînement am c'est bon tax ma sa simmee ko waa Pikine mer kuy waxalul làmb sax mer. nest kon mu ngi si mu si ay loxo waaw di leen ñaanal yàlla suñu borom daal combat boobu ñu bëri ko si jàmm que le meilleur gagne waaw wooy daan daal yaa ngi ko sampal. waaw incha allah rabi bëgg naa daal incha allah rab waaw gars yi dañoo bëgg bu saf combat bu saf. moom mu waaw waaw loolu amoon na fi sa xaritoog mu. Modou moom mosuma doon ak moom ay waay wax dëgg yàlla. ma doon ak waaye moom non non. musu ngeen seq dara. non musu ñoo seq dara lu dul nuyoo mu toog ma toog. jéena kenn ma xatul sa morom. musu a daje kër Yaxya. kër Yaxya nañ daje woon mooy bi di def euh, euh, liyam bi bi foofu nañ daje mu nuyu ma ma nuyu ko jéena mu toog na ma toog nekk samay booy moom mu toog ak ay booyam. jéena yes loolu rek nañ mës a di ak bi papaam gaañoo ma dem jaale ka waaw loolu lañ si loolu lañ mës waaw. mais bés bu gis nga toog ak say li ma ko gis matul quatre quatre quatre lii laa ko gis. quatre fois laa gis benn bi kër yi ki nii benn bi bi nekkee fële nu mu tuddati combat Baye Mandione ba bi beneen bi papam gaañoo beneen bi ci combat kii combat bi bi kii bi sita bi waaw ndax boobu sa gisante wu ñu dama daa fecc dem ma fecc dem waaw loolu lañ gisante voilà. mais yaa ngi koy bàyyi xel xam naa. waaye ñoom ñëpp laay bàyyi xel. lamb ji man maa ëpp adversaire si addu loo xoolal lamb ji daj aw ma kenn ku mu dul damay bëre ñëpp ñëpp lay bëreel man aw ma problème boobu ñëpp lay bëreel mais ñoo bokk nday ñoo bokk baay. caaro rek nga fi bàyyi. kase. ak lamsaar ñëpp lay bëreel. Hmm. Siteu bu neex la waaw. combat bu neex la taxawee dina am bu neex dina taxaw. bu neex dina taxaw ndax Siteu bëgg na ko yàgg naa dëkk Balla Gaye yàgg na kaa dëkkale waaw ba kii di bër kii nu mu tuddati saa kees nees la ko commencé dëkk waaw yàgg naa bëri yàgg naa. te Demba am na ay qualité moom yu mu daane bala moom Siteu. ñoom yaa ànd ak moom. Siteu bëreem chaque jour koy wax lu muy bëree contact du ko bëree du ko bëree jàppante naa moom xam naa qualité yu mu am waaw bëreem ba gu ko arène bi wallaahi lanchim billaahi damay wax te yàlla wallaay laaj bi dafa mën a bëre. waaw bu ma mënoon bëre nii laa ko waxee mënta bëre man damaa dëgg. kon am na qualité yu daan Balla. qualité yu mu daanee Balla. mais Balla doon na koo xam ne tey jii maanaam booy bëre moom doo ñàkk doole yes Balla kuy bëre moom doo ñàkk doole te da nekk ci combat bi. boo daan Balla faw nga boole lool. non si faa nga boole lool par force la loolu mënta ñàkk. Balla dafa doon koo xam ne dafa mën a bëre. am na doole am na fit boole si kon nag booy bëree moom da ngay loolu yëpp téye waaw. yéen ñaan nag xam naa bis bu ngeen pare ba dongalee yàgg baal la. <laughs> yàlla baax na. yàlla baax na nañ dem nag yàlla. suuf na ay waay ngeen nag yéen ñaar non doon ay waay lañ. ay waay nii nii quoi. ñun lamb jëpp ay waay nañ ku ñu dajal dañuy nuyonteeg ñoom jàmm santeeg ñoom. ndax sport la. message bi passé donte coow amoon na mais daf mel ni. yooyu anyway aw si problème si problème. man loolu amu si problème de wallahi lazim ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ku si am naqar wala ku si am mbégte dañuy ñëw ànd ak yow ndax spor la rek spor lu tax ñu tuddee ko spor maanaam ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sport nag bu jotee dañ koy def ba mu neex bu jeexee jéena tey jii man amu fit ma nekk si aw si tali gis saakees te duma taxaw nuyu ko saakees tamit amul fitam bala gay amul fitam kenn amul fitam ah ndax kon ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. liggéey bi rek ñu boole bu. day seetaan football. football waaw damay seetaan football waaw. kan bi da day commencé. kan bi waaw day commencé. waaw. Hmm. équipe nationale xam nga leen. ah bien sûr lu tax xaw ma leen. mën nga maa classé l'équipe bi. classé l'équipe bi. non ma ka ma équipe bi daal. mais góolu Sénégal kan ah <laughs> waay kii. damay laaj. kan mooy <laughs> ah waaw. ñaar ñoo ne ci défense bi. non défense bi ñu si nekk bëri na de. waaw sëñ bi yow bu ma dugal ay fubal. waaye yow man xam naa fubal de. <laughs> Kalidou Koulibaly fan lay taxaw. sa waay kaan bi. Ah. damay ñaan yàlla suñu borom may ñu ko ñu jël ka waaw loolu laa ñaan borom. ñu jël ka looy wax les Lions. ah di wax rek senegal mu ngi seen ginnaaw. waaw nan dem moo ne jom ful ak fayda xam ne tey jii maanaam ñëpp ñu ngi seen ginaaw di leen ñaanal yàlla suñu defal leen jàmm.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 bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee jiin booba tuuti laa